مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي دلين اجامون سين انتربريز 3 menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sa commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati da ngaa bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina bu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 ولا ساخ 677 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد اني جنا سنت يالا دي جولي سي يونتي صلى الله عليه وسلم نيغي نيانال يونتي صلى الله عليه وسلم يال نك يالا دول خيول تمسل واي نون لا ني صحابه الكرام نيوم نيغا خامني نيوم نيو غادو وون دين دي دي يابالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب نيك جولي نون لا ني نيانال تاميت بيب جوليت boo xam ne rek yaa ngi jéem a mooy ci li nga xam ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent tànkam nga teg ko sa ndànk tànk ñu ngi lay ñaanal yàlla mucc ak xéwal mbokk yi tey nag incha allah ci suñu albayaanu ramadan muy waxtaan ñu ngi ñaan yàlla ni nga xam ne noonu lañu tàmbalee ci koor gi bismillahi irrahmani irrahim ñu jeexalee doon ku noonu ci koor gi ci alhamdulillahi rabbil alamin di gërëm bu baax di ñaanal yàlla bu baax suñu mbokk jullit ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu contacté ne ñu kaay nga am ay yiw kaay nga am ay tiyaab ndax képp koo xam ne woo na la ci waxu yàlla kooku ku la bëgg la ku la nawloo la ku la yéene yiw la ñu leen ciy gërëm bu baax muy caaba yaay yàlla liggéey bi nga xam ne moom ngeen tàmbali pour jëriñ caaro yi ak gox yi nga xam ne ñoo wër caaro yépp yàlla na leen ko yàlla fay yàlla na nag suñu waxtaan insha allah ñu ngi ko jëmale ci ngëneelu weer bi weer bi nga xam ne ci lañ ne insha allah dinañ ko topp ba ñëw ci ngëneelu woor bi weer bi ak woor bi bokkul weer bi da am ngëneelam koor gi am ngëneelam tey nag ngëneelu weer bi la ñuy jël insha allah ñu waxtaane ko mbokk yi ñu xam ne borom subhana taala moom mooy ki nga xam ne mooy bind te moom ci boppam mooy bind lu ko soob fa inna allah xaaliqu li jamii almaxluqat jalla wa ala qad faddala baaduha ala baadin borom subhana taala moom mi nga xam ne moo bind ay jaamam te mooy bind leneen lu dul nit yàlla mu ne man maay gënale ci lu ma neex ci li ma bind te kenn mënu ci dara noonu borom subhanahu wa taala mooy tànn tamit ci li mu bind lu ko neex wa yaxtaara minha ma shaa mooy bind ba pare ci biir mbind mi mu mu jël ci li mu bind mu tànn ci lu ko neex mu gënale ko ci kaw leneen moo tax borom bi mu ne fa xalaqa annaas waxtaara minhum al anbiya mu ne maa bind nit ñi maa bind doomu aadama yi waaye ma tànn yonent yi ñu gënal ma ci nit ñi nee na ci biir yonent yi mu tànnaat ci biir yonent yi yonent yoo xam ne ñoo féete kaw yeneen yonent yi muy ulul as muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu gënale ko ak yeneen yonent yépp loolu nag borom bi nee na moom la neex mu doxale ko noonu mu ne wa xalaqal amkaan mu ne maa bind tamit place yi bërëb yépp borom bi subhanahu wa taala nee na moom moo ko sàkk moo ko bind waaye ci biir bind moomu bind bërëb yépp wa iqtaara minha al masajid moom moo ci tànn jàkka muy place yi nga xam ne mooy place bi nga xam ne moo ko gënal ci kaw suuf من وقلق الطهور واقطار منها رمضان من نون لا بند تمت اي وير واين كبير ويري نانا موتان كي وير وي ني نيك تاي موي وير كور يو خمنا وير لا وو خمنا برب سبحانه وتعالى موكو تان كي بير فوك ويري اك نيار مو جيل ويرو كور گنالكو وير ييب وير بودول وير كور لا گنالكو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 kenn du ko boole keneen mooy borom bi subhanahu wa taala mu ne nag wa hada sahr weer wi nga xam ne tey nag moom la ñu tànn di ko waxtaanee muy weeru koor gi nga xam ne ci lañ ne qad xassahu allahu jalla wa ala bi xasaisin kasira borom subhanahu wa taala nee na dama cee def ay ngëneel yu bare ci biir weeru koor mu ne ngëneel yooyu yi ci bi ci gën a màgg من أعظمها وعجلها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن الكريم لجرري جرم من كتان فيغا خمنا يالا تالل نكو وير كور موي واتي بيغا خمنا تي لا واتي القرآن الكريم تي وير كور لوكو واتي واتي بامو واتي القرآن تي وير كور لي جي جرري موي هودال للناس نيوبلا نيل نيت ني القرآن داي جوبل نيت داي ديفر نيت day baxal ni léegi ki nga xamne nak mom du jàng alquran kooku naka lay baxé ki nga xamne ne yittiwoowul alquran kooku naka lay baxé ki nga xamne alquran du ko waxé du ko doxé yonam nekku ci naka lay baxé ak ki nga xamne mom du ko déglu sax kooku naka lay baxé motax borom bi mu ne wal bayyinaat waye day leral ci bir alquran li nga xamne nonu nga wara dundé ci aduna ngir sa ëlëk mëna a baax muy sa àllaaxira bokk jullit alquran daa mel ne mode d'emploi bi nga xam ne moo nekk ci soo demee tey jëndi ay garab ca pharmacie ba garab bi nga xam ne moom lañ la jaay day am notice boo xam ne day nekk ci biir garab bi notice boobu moom ngay daj moom ngay ubbi nga jàng ko nga xam na ngay naanee sa say garab pour nga mën a wér waaye soo nee damaa feebar rek demal pharmacie nga jëndal ma ordonnance ñu dem jëndal la ordonnance nga jël ordonnance yëpp naanandoo ko benn yoon yaakaar naa ne fa ngay mujjee du neex du nekk lu la neex loolu la alquran nag alquran dafa nekk loo xam ne mode de vie doomu aadama la mode d'emploi doomu naka nga war a nekkee ci àdduna naka nga war a doxalee sa dund naka nga war a doxalee sa ménage yooyu yëpp alquran da koy jàng léegi su fekkee gàttal ñu nga nag yow ba jàngoo alquran firiwoo alquran firi luñ la alquran jàngo luñ la alquran sa dund day xajam sa dund day xajam moo tax nga gis ñoo xam ne dañuy dugg ci weeru koor ñu mel ne nekk ñu ci weeru koor nga gis ñoo xam ne dañuy dugg ci weeru koor ñu mel ne weer wii du weeru dara weeru caaxaan la loolu ñu bàyyi ci xel xam ne jullit war na doxee noonu yàlla jubal yàlla yàlla jubal ci xam naa dañ koy dagg foofu incha allah des na lu bari nag su yàlla defee ñu ñëwaat fi ci kattanu yàlla incha allah ñu àggali ko